ألا لم تر عيناي مثل سويقي كمالا وجمالا أزال وشقي sëriñ bamba du seen mappandoo du seen maas da ngeen déglu bindam bii borom aras maas pirim jës bu balam wax danaa ko bamba laa di rambaas sëriñ bee jaraway mbàkke moo yayoo taas damaa yat sëriñ beeka niroog Moustapha ba ci móol te deexul wanguloon settaxul ba dim njool sa gaayab ci ñi nga tey na muy jateeg maar te baatam dana jollet ba tiimi laxyaar rëyul tuutiwuloon gàttuloon ba dib duuñ bu daaree du ko kekkul dadaa saxoo muuñ baxkuhu bi sanaayaahu soxru layla aw siraaju volaamin anaara layla dadaa muuri di yor yatti kaala yooyu njoor rawaan yaa nga ko daa féete wàllu nday joor su muraay ba ne melxat sikkim ba ne laas di saflaari wurus moo ko jekk ay faas te xeesul ba ne peccit faful di aw ñuul yaram waa kara tax mel ni jaani ngóolóor te leerug yaramam tax na cër ya xeereer da daa jolli ci batin ba sàkki ceeñeer te ab xar kanamam day niroog magam weer te nuuroog ba kanam day niroog goros naa gëtëm yaa gën a lamsal du dox du geesoo borom kersa la woon dox di riisoo sëriñ bamba du geesoo bëtam la daa xool di jàllar bi di lamsal du xoole niw mool nam dafa simple mu jekk ay peer bu daa wax di ko ndànkal te baat ba day riir melo tànkee rinkul lasul faful nooj saxom taxoon lax yalax ba sew ruuj te jéegoom ya du jéggeeti yoonu jàkkaam ca tempam la xalaate yoonu lislaam walam yansahu masyam bi ardi tuuba wala yabluxa tuulan jibaala leeba te léebul baruloon moom darul xanaa teey talami wataquloon ku mu waxal dalay déey lahu nuuru jalaalan yuri jalaala lahu nuuru jamaalan yuri jamaala fitam waa gën a rëy mel ni abdu jàmbaar amul soxla ci capitaine wa réewi soldaar ci kun lay téléphone xel ma raw na deppees xolam baa gën a leer làmp buñ jafal mees su cër yey nelawit xol ba moom ma ngay xool su nekkul di bindit boo ma ngay yëriy mool su gëddee nelawit roog a dem aras moom xanaa war na bu raax mbaa mu war ci xayzuum te lay laa du ko tee dem ci péeyi diiwaan ca passion ya ñu sàkkal rijaal ya lay naan laqad abba miyaahu rijaali ayba kama massa shoraban azala ayba borom tar bi de semmal na saaru mbargaan tabaaraka ma jàngal ko saaru furqaan te semmal na ña daa way arab ca daymaan te jaaxal na ña daa way ajam ci soodaan te yaaram ya fi daaway nga neeli adnaan ka buusayri wa kaabun géwal ba xasaan bu tawreeti ñëwaatoon nga mel ni muusa bu injiilu ñëwaatoon nga far di sa buuraa ngi nga làmboo ba mel ni daawud te furqaanu nga yeesal ba far di mahmud sa géejug xikamit raw na géeju luqmaan sa waxtaanu xadiisut sewal na noomaan xosaayib yi nga taarif mënee su koo móol ajaayib yi nga feeñal mënee su ko jeel sa téere xasidaay booti lawxi maxfuus borom kun di la gàgganti mbàkke yaa fees te mun koog malakoot ngay fanaana majjaal malaakay jabarut wër la far di sabbaal xawaariq yëfa yónneen ya daa xare baax xaraatal nga ko waa mbàkke bamba yaa baax moo gisaati rasuulay sa xeeti xar baax xanaa yow daam mbakke gëneefu laa baax la yónneen note woon nooni buuri xaxtaan la saawaay note mbaaxaan fa daaru mën naan sa mbootum xalimaaraw dabuusu muusa te way dee ya nga dekkal tëwoon na isa ndekoo tafli sa lor wi tofal ko busra mu tàggoog lori duniya kazaaka uxra la noohin yabe gaalam nga fulku mashuun la saawaay defi taalif ci fulku mashuun la yuunus note géejëm ba jën wa sabbaal la saawaay note galwaa ñu yàpp ko ciy gaal la ibrahima def taali gaayi nam ruus la def labbe ya daa wax komaaki nem zoos maqaamaatu ko xaabat li man tajallaa anil jiili fa waylun li man tawallaa karaamaati rijaalay sa mbuubitum néeg palaaseñ war a màggal la say goney toog maqaamam jiilaani sa tàmbutil peeñ karaamay tiijaani sa ban wi ngay xeeñ karaamaati junay déeki booti tay fuur ci sagraw nga ko lamboo te taxti laa fuur gilaadooy ngërëmul xawsu yaa ko ràngoo malaanam njariñal xutbu yaa ko sàngoo karaamay bii daane nga leeni soo daan tuxal nañ ko ci waa mbàkke bamba yaa daan faral xadmu sa way wi teyam fi muusa ndeloo lim limitam doo ko xam ba dem sa